ay sa tàkko du naa ma jaay ma ki gaw ay fekkante alaaji bu saaxo dafa daan wax ni boo fekkee kuy jooy bu ko ne jooy danga ko naan kuy dóor bàyyil dóor yi suma nawle ci askan wi Duudu maa ngi xamanteeg moom 1972 ndax 72 benn dibiteri moderne moo amoon Sénégal muy Kër Dollar rue angle Blaise Diagne am face stade bi. booba Mbaye Guèye ni Tigre de Fass duubal lees foofu lay ñëw ak Papa maam góor gi di fa ñëw ñoom Lamine Diack yàlla na ko yàlla delloosi ci jàmm procès bi yàlla na ko lamin Diack gagné ci daraja yonent bi docteur Samba Guèye di jóge fii ci sunu ginnaaw. chauffeur bi di indi pliant ma di ko wàcce góor gi Lamine Diallo ancien ambassadeur de CRI 3 Alaaji Mboor ñi ngi di ñëw Fall Adrien ñoom di ñëw Dout sekk nekk xale Mor Dior Seck sems papay Lamine sekk bi nekk Sonatel may ñaan Mor Dior yàlla na ko yàlla xare àjjana bokkoon ci communicateur yu mag yi nekkoon microcentral lamb ji bëre Papa ak euh, dama xamul Alioune Seye la Papa Kane bëreel deuxième combat wala boobu suma ma juumulee euh, c'était à soixante treize wala soixante seize dañu tëgg làmb arène làmbi joolaa ndax boobu arène Sénégal sos na 73 74 wala 75 duut sekk woy survêtement la sol ak benn pantalon bu oyof survêtement manche longue la duut sekk sol woy es arène arène di xar noo Émile Badiane di toj nit di yuuxu du sekk dañ koy woo mu yéeg cent franc vingt cinq cinquante franc ba mu ëmb xaalis bi bi mu wàccee ak ëmbëb xaalis bi romb Mor Dior Seck sem su def nii ne maa de pende seen xele bi mu naa ah, mu ne ko xaru na mu ne ko lu tax mu ne ko dee na mu ne ko lu tax mu ne ko dafa dafa toj arène bi te xeeñul saafara moo tax sam moo tax ndaanaan foog am gàllañ am ab gétt Doudou Seck woy na lu ne ci làmb daf daa wooy mbër mi daan ñëpp mu tëggal ko ndikku di woy mbër mi daan ñëpp mu bu daanee ñëpp mu tëgg ba mbër mi daan ñëpp taxaw duut sekk bàyyi ndënd mi woo ko su daan mbër moomu làmb ji tas mu ñibbi yàlla na ko yàlla xare àjjana euh, woy na ma fu ne ci àddina su ma ko mos a fekk teral naa ko ndax bis bii nga ma koy laaj ku seetaan làmb xam ni bokk naa ci ñi ko mujj teral ci làmb yal yàlla jéggal ko yërmande yàlla yàlla na ko yàlla sëmbërtal ci dut sekk yaaykat yi njaboot gi fi bàyyi yàlla ci yaakaar yàlla ci yàlla teg loxo waaw adama ma jamaa ngay samba jay laña samba corofal sidi barxam asu jànxay yaayam baay ñas ablaay baayam ku la neeti maa la gën naan ku la yar ànd dagan na tàggoo dagan na loo ciy def danga wey nay naa la kumba kaay birima yendoo yendoo ay sa tàggoo du sabaak sabaak yoon maa sooy maa barafal bala gay teew ma sa taale njaay Sakho dafa daan wax ni boo fekkee kuy jooy bu ko ne bàyyil jooy dañ ko naan kuy dóor bàyyil dóor yi